أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala tollaat ci suratul baqara di jël tey ñaari aaya aaya 273 ak 274 di jéglu bu baax a baax ci fan yi nga xam ne ñëwuñu dars ajuwul woon ci sunu coobare ñaari aaya yi mbokk jullit yi sunu borom subhanahu wa taala dafa am ay mbir yu mu ci leeral bokk na ci am ñu mu bëgg jagleel ndimbal moom yàlla subhanahu wa taala am ci biir jullit yi ñoo xam ne yàlla jaral na leen lu nekk yàlla jaral na leen ñu bàyyi seeni kër bàyyi seeni soxna bàyyi seeni tool am ñu bàyyi ay njaboot am ñu bàyyi ay soxna jëm ci yàlla subhanahu wa taala ñooñu nag ba ñu demee fekk yonent bi yàlla def ñu tumaranke ca barab ya ñu nekk sunu borom subhanahu wa taala di jox yonent bi fi ay njàngale yoo xam ne bëgg na ñooñu ñu dimbali leen waaye ci biir ndimbal gi ndax ndimbal buñ ne dañ koy jox ay nit rek chaque jour ñëpp dañ naan ñoom tamit ci lañ bokk waaye ñii yàlla dafa jox yonent bi ay màndarga ay sifaat ay melokaan yoo xam ne bu yàlla waxee ak yonent bi ba pare rek yonent bi dina xam ndimbal gi ñan ñoo ko yeyoo loolu dañ koy jàng benn ci aaya yi nekk sunu kanam dinañ ci jàngaat tafaadulu ajru sadaqa ngëneelu sarax dafa ëppante ay martaba lu tax ni jafe-jafe bi toll ni problème bi toll rek noonu la tiyaaba bi di toll su fekkee waa ji dafa soxla ndékki nga ñëw dimbali ko ci ndékki bi wala waa ji dafa soxla lu mu dunde këram nga dimbali nga jox ko lu mu dumbe lu mu dunde këram maanaam mbir mi li waa ji soxla rek ki def tiyaaba bu toll noonu lay am loolu tamit dinañ ko jàng ci ay juróomeel ñetteel mooy fadilatu taafuf wa huwa tarku suali ma al ihtiyaaj dafa am benn phénomène tey bu xew ci biir Sénégal ñu yàpp ci ndongo daara yi kese di leen ko sikkee naan foo tornu ci foo tourné ci dëkk bi foo toll ñoom ndong ñooy yelwaan waaye yéen ñi toog fii ndax Sénégal taalibe yi rek ñooy yelwaan lan mooy seen tontu tontu bi mooy déedéet te di laaj yàlla daf ko tere dafa am benn waxtu benn jamono bu jullit am sañ-sañ laaj waaye nekkul rek comme tey niñ ko ubbee li ma sama benn oustaz doon wax mu ne Sénégal ku am ku am yaay seex rek da naan yàlla amboose na ma maanaam boo amee ñaari doom rek da nga naan ah amboose nañ ma nga ustu siwo foo jëm yaa nga sàndaga ku gumba rek da nga naan yàlla amboose na ma ku ku ku ku rek jàpp nga ne yow da ngaa war a nekk ci mbedd mi ndeysaan ñii nag nekk ay gor nekk ay jullit nekk ñu gëm yàlla ñoom li ñuy tumaranke yépp li ñuy wéet yépp li ñuy nekk ay étranger yépp li ñu leen bloqué yépp nga xam ne mënuñoo dem fenn suñu xiifee kenn xamul bu ñu maree kenn xamul xanaa léeg-léeg rek nga daje kenn ci ñoom ci mbedd mi ndeysaan ngeen nuyoo ngeen xoolante nga ree mu ree mais di nga gis ay trace ci kanam gu ñàkk fireeku ci kanam nga gis ci kanamam kii daal am na lu mu nekkee màndarga gi rek nga koy gis ci kanam gi waaye ñoom doo ko dégg ci seen làmmiñ yàlla di leen tàgg ne ñii ñoo yor ndim ñii lañ war a dimbali ñii bu fekkee ndimbal mu ngi am ku yor ndimbal laa demal nga dimbali ji gor gi nga xam ne du añ du reer du ndékki te rus naa wax nit ñi añuma ndékkiwuma reeruma kon loolu doomu ndey bokk na ci ay jaaruwaay yu ñuy jàng tey ci téere yàlla bi subhanahu wa taala mooy tere nañu laaj fegu bañ a laaj yàlla ŋàññ na laaj surtout nag tey ni ko nit ñi defee di ko jaate ci mbedd yi damaa ñëwoon fi fekk ma fi kenn kër ga bàyyiwuma fa dara ñenn ñi dem bay falsifier ordonnance ñenn ñi dem bay fen ñenn ñi di waat di waat fekk li ñuy waat dara du ci dëkk daanaka léegi da ngay dugal sa loxo sa poos sax yàlla rek moo tax ngay joxe waaye wóoloo ki ngay jox doo wóolu waaye nag comme dañ laa laaj ngir yàlla nga joxe ngir yàlla yow perto phénomène la boo xam ne tey dañ koo soññ ci biir Sénégal dañ ko encouragé ñëppay yalwaan ñëppay laaj ñëpp ñooy wax daanaka rajo yi sax da ngay gis yenn saa yi kuy woote rek ngir bëgg ku dimbali loolu nag lu islaam ŋàññ la sonal nit ñi ci laaj islaam daf ko ŋàññ bokk na ci encore lu ñuy jàng ci aay yi nekk sunu kanam mooy saraxe moo xam guddi nga jóg saraxe moo xam bëccëg ñaaru waxtu yooyu loo ko ci def nga def ko ngir yàlla borom bi subhanahu wa taala dina la fay moo xam da nga ko nëbb moo xam da nga ko feeñal bu dee yàlla rek a tax nëbb geeg feeñal gi yëpp borom bi subhanahu wa taala dina la fay fekkee nag yàlla rek a tax beneen mooy mbégte yàlla day bégal way gëm yàlla yi way gëm yàlla yi nga xam ne ñoom ñooy joxe seen alal borom bi nee na leen bu dee da ngeen di joxe rek di ngeen xam ne man maa leen dàq joxe bisa ngi ñëw ci bés yi dinaa leen jox ba ñépp xam ne man mi joxe maa leen jox wolof yi dañuy wax ne kuy jaay baax yàlla bay lebale ker yàlla bu lay fay lu mu lay fay guddi guddi kon ci gàttal lii mooy lenn ci ay mbir yu ñuy jël tey comme dars ñu ñëw ci nasu ay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين احسروا في سبيل الله لا يستطيعون دربا في الارض لا يستطيعون دربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سن برم سبحانه وتعالى من للفقراء نيلنا وينقي الفقير borom xam-xam yi indi nañ ci ay atte yu bare bare bare bare diggante faqir miskin kan moo gën a sonn waaye li wér mooy miskin mooy koo xam ne am na waaye li mu am doy ko faqir nag mooy koo xam ne amul dara ñooñu nag la sunu borom subhanahu wa taala am lum leen jagleel mu bëgg a orienté yonent bi loolu bis bu ko yàlla mottalee mu dugg ci loxo yonent bi na ko yonent bi teg ci loxo ñii mu bëgg a wane seeni melokaan mu ne lil fuqara ñeel na way ñàkk yi ñan allazina ñi nga xam ne uhsiru dan leena wur ndombo dan leena dan leena tere génn dan leena bloqué uhsiru dan leen bloqué fi sabilillahi ci yoonu yàlla yoonu yàlla moo tax ñu bloqué leen waa ñoom ñii ñoom lan lañ def ba gaa yi bloqué leen suñu borom leeral ci aaya bi wàll wi nga xam ne sarax fa la gënee afdalu sadaq mooy nga sarax faqiir yi nga xam ne ñoom ñoo jóge woon màkk julli yi jóge woon màkk ban tur lañ tudd muhajirin su fekkee da ngeen di saraxe am na ay faqir yu jóge woon makka tudd muhajirin na ngeen orienté sarax bi foofu allazina ñooñu lu tax ñu jóge màkk yàlla mu ne uxriju dañ leen a génne min diyaarihim ci seeni kër ya lu tax ñu génne leen dañu bëgg a kennal yàlla rek dañu bëgg jaamu yàlla dañu bëgg dund laa ilaha illallah muhammad rasulullah ay nit taxaw ne lànk loolu du fi am kenn du fi bàyyi sunu maam yi liñ fi doon def waaw loolu ngay dégg àdduna bi fu nekk nag moom ngay dégg Sénégal di ko dégg Guinée di ko dégg Mauritanie di ko dégg Mali di ko dégg partout saa yoo ne laa ilaha illallah ñu ne aja alal alihata ilahan waahid inna hada la shay'un ujaab boo ne laa ilaha illallah rek ñu ne yow da nga bëgg a def yàlla yi benn yàlla waaw mënul nag et puis yow lii nga bëgg a wax nii ñun xamuñu ko sunu maam yi xamuñu woon lii et puis noonu lañ jàppee gaa yi topp leen topp leen ba génn leen ci seeni kër ndeysaan génne leen ñoom ñëpp ana wax kenn bu mu fi des ñi ci mën a jàpp rey ñu rey leen ñu mën a daw daw ñi am fit mel ne Seydina Omar ñoom tàggoo bëccëg ñu génne leen ci kër ya nangu seeni alal ba pare bloqué leen ne leen dootu leen génn wër leen ndomba ne madina bi ngeen dugg danañu wër madina ba dootu leen ko génn ku fi génn bu ñu la jàppee dañ koy dañ lay rey loolu moo tax mbirum diine du mbirum wax kese te tey loolu bokk na ci leen sonal jàpp ne yaa ngi ñëw ci jàkka ji juróomi waxtu rek yaa ngi ñëw dars wala yaa ngi naafila guddi wala yaa ngi woor lundi ak jeudi wala yaa ngi woor nangam wala yaa ngi def nangam rek yow yaa fi gën yow dugg nga ajana est ce que tey ñun ñii bu ñu doon bàyyi leen seen kër yi ngeen dem ci àll bi fanaan foofu ñeenti weer lu ñuy wax wala ñu ne bàyyi leen seen kër yi. bàyyi leen bitig yi bàyyi leen liggéeykaay yi dem leen ngeen gàddaay est-ce que dinañ génn wala ñii nag ñoom dañoo def loolu am na ci ñoo xam ne ay tool lañ bàyyi ay alal yaa ngeen histoire Suhayb bu Ruumi dafa jël alal ji gas ci digg néeg bi suul gàddu ay fettam génn bu mu génnee Màkka rek gaa yi yuuxu ko ne ko Suhayb mu ne leen ah ñu ne ko foo jëm mu ne leen ilallahi wa rasulihi ci yàlla ak yonent bi ñu ne ko waa alal ji nag bi ngay ñëw fii amoo woon dara nga bëgg a yóbbaale alal ji mu ne yóbbaale mu benn alal de alal ji sama alal ngeen soxla ñu ne waaw mu ne dem leen sama diggu néeg da ngeen fa gis toj-toj bu bees bu ngeen ko wàqee alal jaa ngi foofu ma suul bu fekkee nag sama bakkan ngeen bëgg ah di ngeen ma rey de mais balaa ngeen may rey fett yi dina jeex te fett yi du mooy xam ngeen ma gaa yi na ko ñun amuñoo yow affaire alal ji lañ bëgg moo tax bi mu ne tëll tànkam biir Médine Jibril moo wàcc indi aaya bu bees taq bu jógee kaw asmaan yàlla naan wa min annaas man yasri nafsahu ibtigaa mardatillah am na ci nit ñi koo xam ne day jaay boppam ngir yàlla kon ñii li tax yàlla di soññ julli di pour julli ñu dimbali leen dañoo def lu rëy dañoo bàyyi kër xam ngeen kër yéen waa Sénégal xam ngeen kër de imagine leen ku fi amul kër wala sax am nga kër ay nit taxaw ne dañuy toj kër gi tey du ma fàtte mukk keroog ba ñuy génnee gunaas quatre plat yi ñëw di di dajate sunu kër yi joura sama kër ñu ngi ko daaneel quatre heures du matin ma xëy suba dama génn dama taal sama portable rek ñuy woo ma ne ma gaa yi daaneel nañ sa kër ma ñëw taxaw gis kër gi yëpp màbb maa ngi ko defar juin juillet ñu toj ko août journaliste yi ne ma looy wax ma ni yal na yàlla màbb nguuru Ablaye Wade nu mu màbbee sunu kër yi daawatul mazlum ñaanu ko ñu tooñ mun na yàgg mais du mooy du mooy yonent bi day tere tooñ gis ngeen loolu nu mu méttee woon ba ñaan boobu ñëw imagineel xoolal ñi ñoom ñii sax ñoom amuñ ci loolu ñoom waxuñu leen gi dañuy ñëw di leen ba garay ñu daw am na ñoo xam dañ leen jàpp nangu alal ci jàngeen uswaaru aba salama ak umu salama moom dafay génn ànd ak jabar ji mbokki jabar ji ñëw ne ko foo jëm mu ne damay dem ci yàlla ak yonent bi ñu ne ko waaye yow de bu la neexee nga dem ñoo la mayoon jabar indi nangu nañ ko mu ne jël doom ji ñoo ñu ne ko ah doom ji doom ji demut di mu ne leen de doom ji sama doom la ay mbokkam moom tamit ñëw ñi jàpp loxo xale bi ñi jàpp ndeyjoor ñi jàpp càmmoñ ñu koy xëccoo loxo bi bu deeku ñii lépp dal na leen ci yoonu yàlla yàlla mu ne allazina ñi nga xam ne uxriju dañ leen génne ndeysaan génne bu bon génne bu metti génne bu ànd ak façon génne bu nekk min diyaarim ci seeni kër yemuñ ci loolu waaye ñu nangu seeni alal ñu encercler leen bloqué leen tere leen génn guddeeg bëccëg ci biir Médine ñu nekk ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam mënuñu dara mënuñu tukki mënuñu liggéey pourquoi mënuñu tukki dañ leen bloqué mënuñu génn lu tax mënuñoo liggéey amuñu amuñu capital lu ñu liggéey benn lañ mënul yàlla di leen jox melokaan wasafahum taala bi sifatin yaarifuha rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla di def ay màndarga ay melokaan ay sifaat ci seeni kanam ndax ndimbal gi bu ñëwee yonent bi du fi nekk naan ana ngeen fan ngeen nekk yéen ñoom ñëw leen déedéet danaan diw la diw la diw la diw la diw la parce que yàlla ni mu waxee aaya bi rek après yonent bi dina xam ndimbal gi ñel ñoo ko moom yàlla dina ko xam mu ko mu ne yàlla joxoñ na gaa yooyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam pour yonent bi xam leen ndax ñoom dañoo gëm nga gis bu doon du melokaan yi yàlla melal leen ne ñoom nii lañ mel ndeysaan melokaan yoo xam ne jullit bu nekk war nga ko am ñoom lan mooy melokaan yi mooy réyu ñu de ngand ngand lu wuñ déedéet mais dañoo doylu dañoo fegu bëgguñu sonal nit ñi bëgguñu leen a tànqal bëgguñu leen a lëjël bëgguñu leen a ameedre bëgguñu taxaw seen nopp yi rek guddeeg bëccëg naan ah kër ga dara nekku fa de ah xale yi dañoo feebar de ah nangam nangam déedéet bëgguñu loolu ñun bëgguñu loolu fegu nañ fegu goo xam ne ñi ñu dëkkal ci quartier bi sax ñoom bu ñu sangoo solu génn dañu yaakaar ne ñii amuñu benn problème àdduna fekk wallaay bi ñuy xëy suba ndékkiwuñ wala bi ñuy ñëw julli si tisbaar añuñ mais comme julli si nañ ki ñu dendal jàpp na ne ñii day xanaa tey ginaar sax lañu añee wala fegu boobu sunu borom subhanahu wa taala ñii lay wax mu ne lil fuqaraa ñeel na way ñàkk yooyu allazina ñi nga xam ne uxsiru xubisu dañ leen a tëj wa muniu ñu tere leen mina tasarrufi ci wëlbateeku ci suufu yàlla si yéeféer yi yemu ci rek yemuñ ci génn saxaaba yi biir màkka waaye encerclé mais kenn du fi génn xam ngeen ne bés ñëw na ñu ne dañuy songi Médine loolu moo indi xandaq loolu moo ko indi sama sama kado yi war naa ñëw de loolu moo indi xandaq yonent bi ba mu xoolee ne gars yi dañ ko nar a song ndax ahzab la amul armée bu mën a défendre Médine mu woo saxaaba yi suuraa diisoo ne lu ngeen ci xam benn saxaaba bu tudd salmaanul farisi salmaan bu nekkoon Iran Perse mu ne ko ñun de bu doon ñun la suñu dëkk noon bi fas yéene ñëw di ñu te moo ñu ëpp doole di xeex ak ñëw ñu fas yéene taal dëkk bi rey nit ñi dañuy wërale dëkk bi am pax ñu étudier Médine ñu gis côté bi ay montagne la côté bi montagne la benn côté lañ fi mën a jaaree ñu daal di koy gas benn canal canal bu ngand nga xam ne canal boobu bi ñu koy gas ay kéemtaan yu yàlla woon yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam feeñ feeñoon na ci gaa yi nga xam ne dañ leen a bloqué tere leen génn tere leen yëngatu ci suuf si waaw tëj bunt yépp ndax ñoom gàddaay nañ jóge nañ màkk ñëw nañ Médine xamuñu fi kenn amuñu fi kër amuñu fi ay mbokk amuñu fi benn moyen ba pare waa màkka tereeti leen génnaat sax ne leen du ngeen génn ñooñu kon ndeke ñooñu la yàlla di jagleen dimbal bi mu ne ñoom bokk nañ ci seen melokaan laa yastatiuuna mënuñu darban fil ard mënuñoo dox ci kaw suuf ban fa xeetu dox sayran fiha li talabi risq mënuñoo dox liggéey yi uti lu ñu def lu tax lu tax dañ leen a wër laa yastatiuuna mënuñu darban fil ardi dox ci suuf si mënuñu ko lu ñuy ut bi tijaarati ci commerce wa gayriha ak leneen lu tax li xisaaril aduwi lahum ndax embargo ak wër ndomba gi leen noon bi wër gis nga tey bokk na ci xeetu yahud yi démb rek maa ngi koy seetaan ci journal démb la xaw ma tey ci suba Palestine Israël li mu may Palestine ci géej gi nañ nañu nañu napp 20 mètres ban jën mooy ñëw 20 mètres 20 mètres la leen may nañ napp ci géej gi ku ku weesu loolu dañ lay rey 20 mètres gis ngeen te dégg ngeen barki démb waa ji dem na fa bi mu fa demee lu mu fa yóbbu ay loxoy neen non da leen di ar da leen a armé gis nga kon jullit yi war nañu bàyyi xel seen bopp war nañu xam ne li yàlla wax démb barki démb mooy dëgg noonu yi benn benn noonu kese la al kufru millatun wahid bu ñuulee yéeféer la bu weexee yéeféer la bu amee yéeféer la bu ñàkkee yéeféer la xaw ma Birmanie la xaw ma guerre civile moo fa am parce que jullit yi dañ leen a ëpp jullit yi instant bi may waxee génn xam nga ci lan lan nekk ci benn stade lañ leen di garder stade seeni kër yëpp lan taal ak jàkka yi fii ma tey ji may waxee génn tey ci benn stade lañ leen gouvernement bi dugal pour balaa leen population bi di jeex eggali te loolu gis ngeen siiwul fen de doo ko dégg mais bu fekkoon ne benn jullit moo def dara rek journaux yu Sénégal yi ñoo koy njëkk a wax information yi la ñuy tas ci adduna bi yëpp bu benn jullitee ñëwoon ci jàkka ji sàcc daal rek suba nga gis ko ci soleil waaw li kis ki doon wax rey benn yéeféer crime la foog ñu yóbbu la juger la mais boo réyee benn boo reyee benn société islamique kooku benn débat la boo xam ni foo bon foog ñu xool daal ñii lan lañ def ba ñu rey leen mais boo reyee benn yahud ah ba léegi ñi reyoon yahud yi ba léegi ñu ngi leen topp ba léegi ci àddina bi ne di leen di leen di juger wala wala ah waaw xam ngeen George Bush ñaata jullit la rey Irak un million musulman la Bush rey Irak geeram bi te tegu ko fen lan la waxoon la Saddam yor arme chimique est-ce que chimique génn na fi waaw ban guerre moo gën a garaaw loolu fen nga fen nit ñi li nga wax du dëgg en tant que chef de l'État ba àdduna bi topp la ci loolu nga jël say avion di bombarder marché yi hôpitaux yi jàkka yi tey Syrie benn imam bu mag lañ fa rey ak ñi doon julli ci jàkka ja la Bachar rey boroom xam-xam bu ci boroom xam-xam yi gën a mag ci àdduna bi mooy Cheikh Bougie xoolal loolu nu mu grave mais doo dégg fenn àdduna bi ñu koy wax kon noon yi liñ doon def démb ak barki démb saxaaba yonent bi ba léegi rek moom moo fi nekk amul changement julli di ñoom taluñu seen bopp ñoom ñu ngi ci stade yi di simb ak di bëri ndeysaan na noonu yàlla jubal mu ne ñi dañ leen a tëj ba mënuñu génn ci suufu yàlla bi amuñu benn pexe amuñu kàttan bu ñu utee lu nu dunde waaye yaxsabuhum dana leen foog aljaahilu benn ignorant ku réer ne ñii kat agniya ay borom alal lañ ndeysaan gis nga ne ci seen fegu ci seen bañ a sonal nit ñi ak noonu ñu ñàkkee noonu ñu sonnee noonu ñu xiifee yaxsabuhum dina leen foog aljaahilu ku réer ku réer bu dajeek ñoom ci fu mu mën a nekk lan lay foog mu ne ñii agniya ay borom alal lañ ndax lu tax mooy bàyyeekuwuñ donte ne benn mbubb lañ am bala ñuy génn mu set ah jàngeen istuwaaru amir bi Omar faloon bi ko Omar falee Omar toog ay weer ay at daal dem ca dëkk ba di seetu ki di seeti ki mu faloon moom lan la nekk ci dëkk bi mu ñëw dajale waa dëkk bi yëpp ne leen ah seen amir bi moom lu ngeen xam ci moom mbaa ku baax la gaa yi ne ko ah ñun daal am na ñetti ñetti problème daal lañ koy jàmbat ci moom waaw xamuñu baax na xamuñu baaxul waaw wala yi bu baaxee tamit am na ñetti point yoo xam ne baaxul xam ne bu njëkk bi lan la mu ne ku ko woo guddi du la wuyu man ne ah te ñu teg ko fii ku ko woo guddi du la wuyu waaw ñu ne ko ak ban mu ne kenn di ko gis ba xamis Omar nag ban ku indi troisième bi bismillah day jékki-jékki xëm ah yow sama sama kado yi bu ñëw yow di nga am bindoo ma turam yow day jékki-jékki xëm xëm ci biir nit ñi day jékki-jékki xëm rek fi Omar di wax ak gaa yi daane rek mu ne tëll di ñëw Umar ne ah comme mi ngi ñëw nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi mu ñëw laaj lool mu egsi war ne ko yow laa fi tegoon mu ne waaw yaa jiite woon ñii mu ne waaw déglu am na ñett yu ñuy jàmbat ci yow boo amee tontu nga tontu bu njëkk bi nee nañ guddi kenn du la gis koo ko teg mu ne dama leen a jagleel bëccëg bi guddi gi ma jox ko sama borom bëccëg laa leen jox bëccëg ku ma soxla day ñëw bu guddi jotee nag sama borom moo ko moom Omar ne lu ngeen di tontu ah loolu mënuñ ci dara Omar ne ko des na beneen alxamis su sax kenn du la gis yow mu sëgg bañ a wax tontu boobu Omar ne ko dañ koy tontu mu ne ko benn mbubb laa am dama koy fóot alxamis ma ñu weer ko mu wow ma mun koo jiite vendredi juma ku ñu fal ku ñu fal gouverneur bu am benn yére ah gaa yëpp daal di sëgg ñu ne ko waaw lu tax jékki jékki jékki rek xam ne dama fekke woon bi ma nekkee yéeféer benn jullit bu tudd xubayib ñu koy rey ñu ngi ko takk waa màkk wër ko xale yi yuuxu jigéen ñi tëgg góor ñi yor ay yat ñu mel ne ñuy rey kaña ñu yeew ko ba mu ne koŋ ñu laaj ko ne ko yow waxal la nga bëgg sa dernière minute parce que dañ lay rey mu ne bàyyi leen ma ma julli ñaari rakk ñu bàyyi ko mu julli ñaari rakk rakk yi dal gudd mu pare mu ne bu fekkoon ne ne du ngeen ne damaa ragal dee kon dinaa gën a guddal rakk yi mais kon da ngeen naan damaa ragal dee gars yi commencé di dagg nopp naan ko ndax bëgg nga Muhammad remplacer la sa place mu naan Muhammad a nga Medine bëgguma sax dëgg jam ci dàll yi gars yi dagg beneen nopp dagg bakkan dagg baaraam dagg ta pooj dagg ñu koy daggati xubayib nee na kii saxaaba bi nu mu tuddi nee na su ma xalaatee loolu ma fekkee woon ba ma nekkee yéefir mu ne du ma mun a téye sama bopp looloo tax may xam Omar ne leen maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moom moo rafetal sama njort ci kii parce que bi ma koy fal xamoon naa ne ku baax la moo tax ma yónnee leen ko kon la ma ko foogoon ci moom mooy li am est-ce que am ngeen ay ministres yu mel nii ak ay gouverneur ay préfet sous-préfet ay député yu mel nii yéen ban problème ngeen am ay milliards milliards Sénégal ngay gis ku sàcc ay cinquante milliards benn milliard rek ëpp na nga gis ci ay soixante ak ay ñun la xawla wala quwwata illa billah keroog benn waay di wax nee na kiñ ne dafa sàcc xaw ma ñaata milliards nee na milliards yooyu bu ñu ko indi woon Sénégal kër gu nekk saako ceeb mën na faa dugg xool loolu benn nit jël ko benn nit dem toog jàpp njàmbur ñeneen ñi ñuy gàddu ay ñett ñi gàddu juróom ku nekk gàddu li nga mën a gàddu dem toog ba pare ñu ne gëm nañ yàlla ñeneen ñi di tabaxi jàkk ñeneen ñi di yóbbu ay sëriñ ak te fa ne ñoom ñëpp yowmal xiyaam yàlla da leen dugal safara wa maa hum bi xaarijiina mina naar la yàlla wax istabarra alladina tubi'u min alladina taba'u wara'u al-azab jàngeen ay sentiment bi lañu war a bàyyi billaahi ñi sàcc ak ñi ñu jox alal ji pour ñu dimbali leen ci li ñu sàcc yenn saa yi ñëw président ne ko wax da ngay yolomal da ngay am yërmande da ngay am yërmande fekk li tax nga naan na am yërmande mooy dafa am lu la jox yow ci suuf ah ma yërmande wan yërmande ku sàcc ay milliards lu ñu yërëm lu ñu koy yërëm kooku rey suuf ñaata population bi la rey waaw ñaata nit la waa jooju rey tey ci Sénégal boo demee hôpital wallaay semaine bi yëpp ñëwuma ndax dama doon dem hôpital da ngay gis ay nit yoo xam ne boo ñëwee journée bi doo añ sa xel ci ñoom lay nekk billaahi wallaahi taala da ngay gis ay nit yoo xam ne ñii loolu tukulóor yi naan alaa moo ɓuritu allah bu doon sa mbokk la moom oh yal na nu yàlla dafa sutura ñii nag ñoom li ñuy sonn sonn yëpp da ngay gis ñi nga xam ne dañoo réer dëkk ak ñoom ci quartier bi wala ci kër gi wala ci koñ bi ndax ñoom ni ñuy moytandikoo ak ni ñuy fegoo bañ a lëjal nit ñi ñooñu dañ yaakaar nit ñi agniya ay patron lañ ndax même bu dee benn mbubb la it danañ fexe ba mbubb bi set même bu dee amuñu saabu it danañ sangu danañ socc seen gémmiñ danañ fexe daal ba bu ñuy génn di jonjoog nit ñi nit ñi dinañ ah ah kii di am kii di amul problème fekk waa ji ndékkiwul ndeysaan teeru añ allahu akbar lan moo waral lii yëpp yàlla nee na mina taafufi ngir fegu rek ngir fegu fegu tarki suali naas bàyyi laaj nit ñi bugguñu laaj kenn wal kaf anhu dañ ko moytandiku dañ ko daw bugguñu bugguñu ko wala ñun tey da ngay gis fii ku pro lan loo njëkk a wax ñoo ngi nii taxaw amuñu dara ndimbal rek ndimbal la ñuy ñaan mi ne taafuf ana ana diine ana iman borom bi subhanahu wa taala nee na ndeysaan ñoom taarifuhum di nga leen xàmmee jarul ma lay wax seen tur taarifuhum di nga leen xàmmee bi siimaahum ci seeni xar kanam ndeysaan léeg-léeg lu ñu ñëw taxaw ak yow ci jàkk bi ci sàppe bi wala ci dëkk bi ñu daje ngeen nuyoo même bu ñu muuñee bu fekkee am nga xel di nga am sentir loo sentir sa kanam seen kanam ndeysaan taarifuhum di nga leen xàmme yow muhammad bi siimaahum ci ay màndarga alaamaat yan màndarga la màndargay aajo aajo aajo dañoo am ay aajo di nga gis ci seen façon yére yi sax yenn saa yére yi ñu sol di nga ko gis ci seeni kanam yenn saa yi sax bu ñu waxee nga dégg ko ci mais bugguñoo laaj kenn laa yasaluuna naas du ñu laaj nit ñi du ñu ñaan nit ñi du ñu yelwaan ilxaafan di leen sonal ilxaaf mooy sonale 24 heures sur 24 taxaw ci kanamu nit taxaw ci ginnaawam sëñ bi yow laay wax eh eh eh imaam imaam imaam yow laay waxal kër ga bàyyi moo fa dara de eh wal ma imaam bi ñu meeri di def fii ah waaw loolu mooy ilxaaf sonale sonal nit ki ngay laaj est-ce que xam nga ndax yor la lu la jox taxawal rek moom bu la séenee xam na ne yow da nga aajowu am na lu nekk ci poosam incha allah bu la koy bu yàlla dogalee ne yow la ko war a jox daf la koy jox ñi am na ñoo xam ne yi léegi yalwaanunu dañ lay koj ci mbedd yi eh sëñ bi yow lañ wax joxeel fii bloqué la di la topp ba buy jël oto sax dañ mel ne dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay mbëkk ya xam ngeen ñi may wax loolu fu ñu ko teg ba pare avec ça ñu naan taalibe yi yenn saa yi ñu barré circulation oto yi duñ dem te yàlla du mu ngi nii dafa ne ñii laa yasaluuna naas du ñu laaj nit ñi ilxaafan di leen sonal ku barré circulation bu ambulance bi doon ñëw sax du dem loolu fan lañ ko teg état di ko seetaan xanaa taalibe yi lañ yëpp parce que amuñu ndey amuñu bàyyi waaw lu waa ji waxoon na ko ndeysaan El Hadji Omar yal na ko yàlla yërëm El Hadji Omar waxoon na Sénégal ku dee am nga ku la jooy xoon na ne ku dee am nga ku la jooy mu ne ba mu des l'islam l'islam amul ku ko jooy Sénégal mu ne laa yasaluuna naas du ñu laaj nit ñi ilxaafan di leen sonal ñii kay waroon nañoo mën a laaj ndax suñ doon dimbali ñii rek ñoo ci yey ñi bàyyi seen lépp topp yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam joxe seeni alal joxe seeni deret joxe seen lépp te terewul xolal sonaluñu nit ñi xolal lépp lañ bàyyi fii da ngay gis benn waay boo xam ne dafa nekkoon ci parti bi bàyyi parti bi rek parti bi dem au pouvoir rek nga dégg mu naan sama lépp laa ci def kon foog ñu fal ma gis nga kon yow dafa ça veut dire que bi ngay bi ngay bi ngay ñëw ci lii dafa am loo fi yaakaar ñii nag xam nga lu tax duñ laaj nit ñi parce que bu ñu fi dugg yàllaa tax yaakaaruñu fi dara dul tiyaaba dugg aljanna looloo tax ndeysaan laa yasaluna annaas ilhaafan borom bi ne wama tunfiqu lépp lu ngeen mën a joxe min xayrin ci xeetu yiw yi ci alal lu mu mën a doon fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko léeg-léeg ci sunu dars yi bu ñu eggee ci aaya yu mel nii ñu soññ sunu bopp soññ mbokk yi ñuy bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee yàlla mu ne wama tunfiqu min xayrin lépp lu ngeen mën a joxe ci lu baax kon kenn bu dee man awma bu yàlla ne woon xaalis kon da nga ne man awma xaalis bu yàlla ne woon terrain nga ne awma suuf bu yàlla ne woon nàngam nga ne awma lu waaye min xayrin ci lu baax kan moo amul lu baax imaatatul ada ani tariqi sadaqa tabassuma wajha axiika sadaqa nga dajeeg jullit sax ngeen nuyoo nga fexe ba mu muuñ yow def nga lu baax saraxe na nga fekk luy gaañe ci yoon nga dindi ko min xayrin lépp lu ngeen mën a def ci lu baax yàlla ne fa inna allah naka yàlla alimun bi yàlla xam na loolu lii rek moo tax sooy joxe wala nga am looy def ci lislaam jarul woo télé jarul woo nit ñi jarul woo rajo jarul tànt jarul woo mbooloo mi dañuy joxe ngir yàlla yàlla xam na mais yenn yëpp rëy rëylu la ak di jéemoo di def ay démonstration la force dañuy wane sunu doole gis nga nangami fan rek waaye jaw après xanaa jàng jànguñu yàlla lu mu wax am na ñu leen ëppoon doole di jéem a jaay doole lan leen yàlla def alam tara kayfa faala rabbuka bi aad aad waa aad lan leen yàlla def yàlla bàyyi aad mu ne irama zatil imad wala ngeen jàng histoire iram pour nit ñi xam ne waa iram du ñu du ñu ndaw yàlla mu ne allati lam yuxlaq mithluha fil bilad dëkk bu mel noonu bi àdduna commencé ba léegi kenn du ko tabax te am na ko ko tabaxoon lu waay am am alal munoo tabax comme iram allati lam yuxlaq mithluha ku wax loolu yàlla kon loolu nu mun a mel waaye ba ñooñu reewee ba bew di jee yàlla yàlla doole nu leen yàlla def yàlla daf leen alag ak dëkk bu fa continuer de wa samuud allazina jaabu saxr ak waa samuud nga xam ne ñoom ay ponkal lañu woon dañu ñëw fekk benn montagne ñu xëy ci suba balaa 5 heures ñu def ko ay immeuble yatt ay yattkat lañu woon dañoo am doole yàlla yam boobu de mu ñëw ci firaawun ndax doole bu mu amoon firaawna ban doole la amoon mu ne ana rabbukumul aala maa yàlla maa alimtu lakum min ilahin gayri waaye ñooñu fuñ mujj yàlla neen histoire rek leen di jàngale kon yooyu amul njëriñ xam nga lu am importance mooy liggéey islam bii ñu yàlla ñu taxaw ci ñu liggéeyal yàlla subhanahu wa taala li ñuy yaaj li ñuy laaj jaami yàlla yi na fekk ci jaami yàlla yi la jëm na fekk du pour puukare na fekk du pour gis leen ñu na fekk pour l'islam am ndam la waaye ay concurrence kër gi kër gu mel ni kenn tabaxu ko fi waa waa Iram defoon nañ ko yàlla alak dëkk ba ah kër gu mel ni amu fi oto oto bu mel nii amu fi oto bi waa ji yéeg amul ci dëkk bi gis naa ci internet benn benn kilifa boo xam ne kilifa diine boo xam ne dañ koy jëlal ay dàll ñu naan dàll yi amu fi dàll yi amu fi grand boubou bi amu fi tisi bi amu fi kaala bi amu fi waaw fii loolu mooy lan yonente bi alayhi salaatu salaam da doon war mbaam te yàgg naa leen ko wax de bala ngeen doon xam ne am ngeen ay kilifa diine ngeen invité benn kilifa diine ba ba place de l'indépendance ngeen wàcce ko oto bi 4x4 bi ngeen indi mbaam nga ni ko yéegal bilaay dina la dóor ba nga dee loolu yow da ngaa yabaate kii est-ce que dina war mbaam allahu akbar te ku ko gën doon war mbaam muhammad yemul ci war mbaam de mu teg ci mbaam mi keneen allahu akbar togg ci keneen fii ñoom ku ci am oto doo yóbbaale nit yow kenn ci ginnaaw grand boobu bu fees ko nga ni nii kenn oto bi daw ay kilomètre ñaari nit ñoo ci nekk lakk cent mille essence wala gasoil ñaari nit nga romb ay nit ci yoon bi doo leen yóbbaale yoon ti moom keroog ba mu waree ci mbaam mi daf cee teg Muaz ndeysaan Muaz ibnu Jabal yoon ti da koo teg ci mbaam mi Muaz allahu akbar radiallahu anhu wa arda mbokk yi yàlla mu ne wa ma tunfiqu lépp lu ngeen mën a joxe min xayrin ci lu baax fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko allazina gaa yi nga xam ne yunfiquuna ñooy joxe amwaalahum seen alal billeeli ci guddi wa nahaar ak bëccëg sirran ci lu nëbb wa alaaniyatan ak lu feeñ gis ngeen wala ñi dañuy joxe ni ñuy joxe amwaalahum seen alal billeeli guddi est-ce que am na lu ñu bàyyi wan nahaar bëccëg sirran lu nëbb wa alaaniya ak lu feeñ moo tax ndeysaan am nañ benn mbokk day jékki-jékki daan ne na noppalu leen mun leen guuxanteeg saxaaba yi buntu àjjana mënu leen ko aaya bi nii mu wax nii kan ci ñun moo koy def di joxe guddi di joxe bëccëg di joxe lu feeñ di joxe lu nëbb xool saxaaba yi dañ ko doon def te ñun ñoo leen gënoon risque kat ñun ñoo leen ëppoon alal gal ñun ñoo leen ëppoon alal mu ne ñooñu falahum am nañ ajruhum seen fay yàlla dina leen fay fay goo xam ne inda rabbihim ci seen boroom lay bàyyeekoo moo tax gis nga ñi yox yoxi wuñu parce que fay bi fu muy bàyyeekoo seen boroom yàlla nag ku muy fay xoolal rek yow te bu ñu la la woon ne président de la république moo lay jox sa salaire tey yow nooy déggee loolu nga def fi ngay liggéeyee nga war a retirer sa salaire ñu ne la non non tey président de la république bon moo la woo këram nee na nga ñëw mu jox la sa salaire. xam naa ne bala ngay dem da ngay romb kees ki mburu bi jënd kilo mburu daal ci sotti gerte caax ba mu fees jaar ci mbedd mi di lekk ndax kontaan. ah soo romboon 10 000 yuy naaw sax doo ko for suñu leen nga ne wuu gis nga parce que rek te te wóorugul kat wóorugul waaye ku yàlla di fay nag kon inda rabbihim ci seen borom yàlla mu ne wala xawfun alayhim ñoom duñu tiit allahu akbar gis nga jour bu ñu leen di fay wala xawfun alayhim duñu tiit lu tax tax duñ tiit yàlla moo leen téye ñi nga xam ne dañu ne yàlla mooy seen borom summa staqaamu tatanazzalu alayhim almalaika alla taxaafu wala tahzanu yàlla moo leen di defal sécurité duñu tiit jàngeen ñu ne bu nit duggee bàmmeel ba malaaka yi ñëw di ko laaj ku yàlla bàyyeeg sa bopp melokaanu malaaka yi nga tiit waaye yàlla moo ne yusabitu llahu allazina amanu bi qawli sabit ñi gëm yàlla bu leen malaaka yi laajee ku doon seen boroom yàlla nee na maay dëgëral seen làmmiñ ñu tontu kon ñoom bu ñu tiit ndeysaan boroom xam-xam yi nee nañ Omar yonent bi di wax ak ñoom xadis bi Omar dafa jékki-jékki ne yonent est-ce que biir bàmmeel dañuy dellu siwaat sunu ruu yi nii nii ñu toog comme ni ñu toogee yoon dina ko waaw mar ne ah kon jaru man jaru mayti ba génn àdduna am kenn sahaaba yi géntu omar ne ko waaw omar yow ñaari malaaka yi biñ ñëwee di la laaj loo tontu mu ne bi ma déggee suuf si di riir ñuy ñëw ma xam ne ñoom la dama toog jóg toog di leen xaar biñ ne tëll bañ a bala ñu ne maay kuy sa borom man leen yéen ñaar kuy seen borom kan ma waroon laaj ñoom waaye moom moo leen laaj ne leen yéen ñaar kuy seen borom yéen ñaar yusabitullahu allazina amanu bi xawli sabit yàlla mooy dëgëral ñu gëm waaye xoolal jeexitalu aaya bi yàlla mu ne wa yadillu llahu zalimin tooñkat yi dama leen di réeral ñu la ne man rabbuka ñu ne ah ah laa adri wóoy wóoy xaw ma ko wala kay nee na laa talayta wala dare xamoo yàlla boo xamati bu aaya bi yemoon foofu rek mu neex yàlla mu ne wa yafalu llahu ma yacha maay def lu ma neex kii doon def lu ko neex fii maa fii def lu ma neex wa yafalu llahu ma yacha borom bi nee na duñ yem ci rek tiit waaye wala hum yahzanuun ñii duñu jàq duñu tiit duñu jàq waaw dëkk boo jëm wala kër goo jëm wala kilifa gooy seeti wala borom doole booy seeti nga yëg ne yow am nga fa ñaar am nga fa sécurité doo fa am problème da nga yàkkamti dem wala doo yàkkamti dem ah waaw xoolal ñi yàlla mu ne wala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun kon de lu ñuy def rek mooy ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole ñu ci ñii allahuma ij'alna minhum wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh